drapeau bi daanu na say say drapeau bi daanu na góor a jàmm drapeau bi daanu na drapeau bi daanu na waaye benn lañ gis mu génn deuxième position troisième trois xuraja ñëw na xuraja ñëw na naawel ne ñëw na moom tamit góor a jàmm ñoom dañoo def benn bloc ñooy romb nit ñi waaye ki nga xamante ne moom moo génn mooy xuraja doomu Kazaroun ak ki nga xamante ne moom mooy xudaa deuxième position ko góor a jàmm ki fa nekk moom mooy naawel di doomu soleil de minuit troisième position góor a jàmm ki nga xamante ne moom moo fa nekk moom mooy bel quatrième position baax cinquième position dolli sixième position ki mango deuxième position ki nga xamante ne moom moo fa nekk moom mooy na ñooy laal tournal bi a nekk mooy naawel waaye na waaye baax na def avancement général. gis naa fas yi nga xamante ne mooy bel boobu rétrograde encadré waaye seen naa dolli moom mu jaar di nga xamante ne mooy ci ci bi seen naa mambo kii mu développé seen ki nga xamante mooy góor gi moom. waye nak soo si génn ba tey moom mooy Khouredia Laat. mais Gora Khouredia daa rek def tek trans Gora c'est toujours Khouredia ki men le breton toujours yaa gis naawel moo nekk foofu noonu moom a téye avancé na ci nawel tok ak mom yaa ngi gis bel ah soudou avancer na ci ñom ñom ñep def nañ ben ndugu lay ndoy waaw waaw Cheikh tournal Lahat rek tourné tournage Color et Couture Khouredia moom moy Sirifal bax monté par mo Momar Dieng en jockey ah eh, ñëw na d'office ah ki nga xamante ne mooy doole avancé nañ boo baax fu mu teg tànk mooy mooy mam mooy mam mooy mam Fallou Diop avancé na suudu bel moo ngi ci bi ñooy romb waxoon naa rawante bi si sama gis si ñaar ñii la moo mën moo mën see daaw muy baax ki nga ne moom mooy suudu moom moo raw dimanche góor a ñooy laal tournal professeur mag bi ki génn fu mu toll nii mooy baax góor a jaam baax baax génn monté par le sac Mamadou Dieye suivi de Soudou suivi aussi ki nga xamante moi Mambo King en quatrième position Belle moo fa cinquième position ki nga xamante Dolly en sixième position kan moo c'est le Kazakh jaune bleu Ou à naa fas yoo xamante ni mooy Volti ou à mboog naa yor waaye nag Momadou Dieye jaar na nga ba jaar arras mais Soudou Bayou Benyon, Moi moo fas yi nga Mambo King mais en quatrième position Lakat, ki fas yoo moi mooy mais cinquième position def parce que jëli jëli na Ila Touba bi ñëw ran si si euh, journal xombal bi toujours suivi suudu yaa ngi gis Mambo King moo position quatrième bel attention baax góor ndax day naan si góor attention attention baax attention baax tournal Corée de culture White Fabulous Dancer monté par Grand Zogue Momar Dieye par Fallou Diop troisième position ki nga xam te moom moo fa nekk mooy King Mambo ñëw ci 200 mètres bi baax génn na góor a jàmm baax génn na laay Thibaudin Fabrice Wade Fabrice Dancer seen naa suudu Wango mooy Mamo King King Mango Mr Prospector et le quatrième c'est le euh, Dolly Dolly Dolly cinquième le Sevat la Belle première baax deuxième suudu troisième Mambo King quatrième Dolly cinquième Belle